xale baa ngi maa ngi jéeg baa ngi. ñu ngi lay nuyu bu baax. xanaa wuy si Aida rek. Mhm. wuy si Aida ànd ak Fatima Baro ak Pape ñëw wuy si Aida Samb bu baax mu judd baax màgg gën am ñaani waajur may ñe ma koy ñaanal yaayam ji dëddu baayam bi dëddu yàlla yàlla xare àjjana te yeexañu sëy bi yàlla barkeel combat merveille mooy premier mooy troisième njëkk mi ngi ñëw sama xarita ah, troisième njëkk bi mooy combat merveille mi ngi ñëw séeri Abdoulaye Dade Ngom mi ngi ñëw maa nag Fatima Baro mii séeri Pape ak galaba mi ci biir jàmbaaram président Macky Sall mi ngi ci biir di <laughs> lii laa wax. mais feeling bi feeling bi nga àndal da nga ko judd waale ma dab ma dabu ma sama yaay dafa jong ma ma judd baax judd maa war a jong ma def ba mu baax fexe nag tubaarkàlla ba téye sama bopp jàpp sama ñaam liggéey sama liggéey gëm suñu borom. maman nga nekk taasukat mais si say woy nit ñi dañ ciy fecce mais da ngay faral di yeete. waaw lan ngay wax waaw ah, ñu gis euh, temps yi ay coow yu bari di jóg xale yi ah, si théâtre yi gars dem ba ne dañuy censurer sax yenn kii yoo xam ndax xale yi rôle yu garaaw yi ñu ciy joué yow lan nga am looy wax. loolu yu garaaw xaw ma ko waaye xam naa tooñ sa nawle baaxul tooñ sa nawle képp kuy tooñ sa nawle di waxal sa nawle loo ko war ta wax di waxal sa nawle lu ñaaw di nga gàtt fan doo gudd te boo dewee yàlla lakk la kiraaman kaata bii na danga ko fàtte. <laughs> looy wax yi jigéen ñi doog a dugg ci sëy lan ga leen. xanaa sëy te yàlla tax dëbb sa dëbbi ndey sëy bëgg sa borom kër toog sa peggu ndey gis borom kër mu takk la yóbbu lii laa wax. ça va si ba leneen xew. yow eh yow Fatima Bara ñi ñu ngi génnaa ah, foo taxaw jëm. sëy ba ngeer sëy sëy rek sëy ba dee ndax ki ko takk day gambien ay da nekk troisième daam. ñu ay doomu géwél sëy rek laa ko conseillé ndax man magam gi di ko conseillé sëy rek sëy laa def ba bay sëy à l'âge de 19 ans maa ngi sëy 34 ans du ñetti fan am doom ba am samay set sëy rek na ay de sëy sëy rek ba dee